train de finaliser nos listes pour siéger sur les bureaux de vote. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes prêts. Mais par principe, nous ne voudrions pas que notre victoire soit entachée. Voilà pourquoi nous voulions que toute la lumière soit faite. Et nous espérons que nous allons être suivis par ceux qui le voudraient, bien sûr, pour que Mbir Midjarion. Je disais, et je me rappelle cette loi politique que j'ai reçue de Maître Abdoulaye Wade en politique. Les chemins se croisent, se recroisent et par moments peuvent s'entrecroiser, au point que tout propos tenu mérite d'être adossé sur des principes pour que demain vous ne soyez pas la risée des peuples. Ce qui fait donc dire que ñun pare nañ pour dem élection ñun pare nañ am nañ candidat ñun pa am nañ bilan bu ñu mën a défendre mais am nañ ay propositions yu ñu mën a def ñi parewul nag yaakaar ni seen place ñañ ko jox dañ doon kaf bañ jël ko ñoo ñoo am problème moo tax ñun ci li ñu nekk mooy dem ci campagne pare nañ non li ma wax dama ni dafa am ñu doon kaf ba dugg ci fiile yi dañ bëggoon dem di ruser ba kañu tànn pour mu demal leen à la limite arrangé wu leen ñu bëgg a changer mbir yi nous voulons que les parlements le parlement soit respecté nous voulons que la séparation des pouvoirs soit respectée et nous comptons sur la presse pour édifier le peuple car il y a de la manipulation dans l'air vive le parlement vive la démocratie vive l'état de droit merci chers Mohamed Aïb Salim Dafé, suivi de Biram Souley Diop. Ah, merci, merci euh, à mon collègue euh, le président Moussa Diakhaté. Je l'avoue que tu, je l'avoue, es un très bon comédien de l'ensemble lyrique traditionnel. Et je pense qu'il faut quand même remercier le président Pape Diop qui t'a laissé son siège en tant que suppléant. C'est important de remercier le président Pape Diop également. Ce que je voulais dire, c'est que vous nous avez soumis aujourd'hui une proposition de résolution de la commission pour une commission d'enquête parlementaire. Cette proposition de résolution a été examinée en mode fast track. arabes locales. waaw mais c'est un suppléant suppléant dara newu ci de suppléant dara newu ci waaw suppléant dara newu ci dama li bëggoon wax vous nous avez soumis une proposition de résolution sur la commission d'enquête parlementaire monsieur le président Mamadou Lamine Thiam vous l'avez soumis on l'a examiné en mode fast-track, ce qui n'est pas habituel. L'article 48 du règlement intérieur dit clairement que les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés. Sur des faits déterminés. Et la, de, de, la résolution et l'article premier, on voit qu'il y a une incohérence et une contradiction que nous avons soulevée en commission et que nous le processus électoral. Et le processus électoral démarre depuis les inscriptions sur les listes la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du

dans l'article L123 qu'on a confié au Conseil constitutionnel la commission de des parrainages. À L57, on a validé ici le tirage au sort. Et ceux qui, sont, ceux on a dit qu'ils vont voter ce que c'est issu du dialogue national. Donc c'est ce dialogue national qui nous met actuellement national qui nous met actuellement dans l'impasse. c'est ce que je voulais je voudrais qu'on reconnaisse ñu jàpp ko xam ne dialogue national boobu moo ñu indil code électoral ñu voté ko le 5 août 2023 ñun on était contre dañu ne woon nañu améliorer texte bi ñu indi fi ay amendement ñu rejeté ko ñu yóbbu ko conseil constitutionnel constitutionnel conseil constitutionnel rejeté ko donc ñun suñu responsabilité suñu jaan wàcc na. leneen fu may bëgg a terminer mooy dégg naa ni euh, am na ñu fi critiqué nañu juge constitutionnel mais les sept juges constitutionnels ñëpp Macky moo leen nommé le président Macky Sall. Donc c'est le président Macky Sall qui s'est trompé dans son choix en nommant ces sept juges constitutionnels. Donc loolu nañ ko nangu mais Macky Sall moo nommé les juges constitutionnels sept yëpp décret la leen nommé donc lool su fekkee juges constitutionnels yooyu baaxul le choix de Macky Sall moo baaxul kon loolu nañu war a wax Sénégalais yi comprendre ko leneen li nee nañu report élection képp kuy wax report élection maanaam report élection mënul nekk parce que article 31 de la constitution moo ko dàq moo fixé le calendrier électoral report des nekk wax nañ fi article 52 les pouvoirs exceptionnels euh, président da nga juum article 52 Macky Sall mënu utiliser la première benn article 52 ci article 16 constitution française la jóge nañ ko en France c'était en 1961 lors de la guerre d'Algérie et c'était donc ku fi wax article 52 ku ko def ce sera un coup d'état te day nekk haute trahison leneen li la lu may dégg ñu naan yéen waa Benno Bokk Yaakaar lu ngeen di def nii da ngeen bëgg a jàppale seen candidat raxas deram mais bala ngeen di raxas deru kenn ngeen défendre ko man dama dama jàpp ni mais yéen waa Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba lan la leen def lu tax ngeen bañ ko ah candidat boo xam ne dafa war a dem campagne électorale nga da ngeen di ko woo arrêté campagne électorale ko devant une commission d'enquête parlementaire loolu ngeen voté ko adopté ko dangeen ngeen da ngeen bëgg seen candidat bàyyi leen ndaxaate bi fu may mujjee mooy haute cour de justice bi nañ ko teg depuis octobre 2022 haute cour de justice boobu moo mun a juger le premier ministre moo mun a juger les ministres moo mun a juger le président de la république su dee dañuy sunu ndaxante wuñu bàyyi leen électorat bi ngeen di ndax. bàyyi leen tappale bi bàyyi leen caaxaan bi loolu laa leen wax. di leen wax Sénégalais yi dëgg. le 25 février on ira aux élections incha allah je vous remercie. Merci. Merci, chers La parole est à notre collègue Biram Souley Diop. Il n'est pas là. Absent. Abdoumbaou, vous avez la parole. Merci. Euh, merci, euh, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais saluer tous mes collègues et dire que le Sénégal est une république